ràññeeku ci crème boo xam ni kat maanaam boo ko defee sa yaram yooyu duñu la laal ràññee ko ci cuuraay boo xam ni day dàq yooyu ràññee ko it ci ñaari insecticide yoo xam ni fu ñu gis ay gunóor ak mbóot rey ko ràññee ko ci puudaru mbóot boo xam ni suy mu ne ngalañ waaye it ñu daal di am pâte dentifrice ambos Vitale ñëpp xam. Vitale qualité meew supérieure Vitale ngeen yàgg ànd ak moom mu yàgg leen a gunge. <laughs> cey waa ju baax. vite fait mii rey yooyu day fexe ngeen di nelaw bu baax meew mu neex mii nga xam ni moo yàgg gunge Sénégalais yépp ñu koy wax meew Vitale àndandoog diwlin ñaan yi mi nga xam ni mooy diwlin bu baax bi nga xam ni moom la sonakos indi moo leen di may.

mais dañuy wax waaye jéegu dàngoo mën a togg. surtout seen muccaat nag. muccaatam dàngu. muccaatal longa. yàlla moo am daxaar. balaa ngaa xam ne dàngoo neex sax. dem fa midi. ba <laughs> ba ñekk ceebi teg ndugg ma day ñor. ceeb yee ñor yaay moo tax jigéen ñi dangu jigéen dangu am nañu kër àjjana de waa dangoo neexab ceeb booy lekk doona suur naa ndax diwlin ñani waa dangoo neexab ceeb booy lekk doona suur naa ndax diwlin ñani ceeb booy lekk doona suur doone suurna waa per per per xanaa am itam warul ceeb ay doogu kese ana borom agatu eh akata seetaan nga télé déedéet déglu nga rajo déedéet kooru waaju baax bi jar na seetaan waaw baax foo wah nii waaw waaye américain ma woo ni wallaay xaw ma américain yee la woo xaw lepama dal oom yuy mi teeg ndigluy mi tek vertèbre yu teggee kook la ilaha illallah arturos bi nak mi may bëgg ray yow koy nga rek ah ilah illallah su tak gi de mo moy tudna toy ap de de do toy may ma ñu wit fe tejna so lamine dafa làmmiñ saw yaram di na niin mat ay way bu do ton ak yow dina dem ci miir bu gatt bu wex ben bindal ma ici repose naan bi fa nak ici jog taxaw la ah. diwul ay lo sax ni way yalla na nga gudd fan way ma ne ko lii du baax waay baabee ko kale won eh. ah. le sol nga yag de iso oom yi ngi mel ni ya de ci parti ri ndeke nga bok maa ko ba am ñetti fan ko ceeb gis nga maa ko bun rënk rek lay nu rol de diwal diwal diwal ah, yi ak nopp yeeg fépp vite fe ci ay ma la ko xam ndax mag nga defoo wit fee day arrangé na mag ñu bari ha illa illa la dimbale na lagi ñi de won sepp yow di bu ton ak yow tay ñu bindal ma ici repose ya doo doo ici repose nak ci miir bu gatt bu weex ba fee ca bank non non day repose yow mom day repose rek repose léegi nak damay ñëw dem fo jëm leena mbokum ngi tok di ma xaar américain yu nañ Amérique ñu joggé thailandais ñew nañ. nga né wa Netherlands ñew nañ. Dortmund ñew nañ. nee nañ seen kilifa ga nekkon Chine populaire ak Russie Russie Russie sax arrêté nañ guerre bi ndax sans mariage. Ah. Russie arrêté nañ lepp xalé bee ñok ékéré wërseuk xalé bee and ak wërseuk ah, man sama bés bésu jàmm la. xamoon na ne di nga teg. suma démé da ko xaar ci kër ga dé suma démé ba ba ékéré arrêté guerre mo Russie ñu def sen délégation ñëw wuy suma ah sa baay de lum mu refan tay sa yay fay nok tay la sama bay fecc refan tay la sama bay fecc. tey maa ne yëbër ñett tànk bi mel na ni. dëgg daa taxaw wéyu. vite fait bien fait. vite fait bien fait. vite fait bien fait. toogal sa baa. ya ba be ko tey won motax te umbi concentré wu. lu mo ko jege sa gi nii sax baa. ay ba fi nga mu hmm gor gor lu yaa yaangi non diwol ba mu toy xep man nak damay ñoo dem nuyul ma américain yi. lima sol baxna na. li nga sol baxna lima kasse yi kase. nga fi. li nak dama koy di dama ko ma jox ci yoonu rek eggul ci americain rek dama ko mako jox. ma nga ci yoonu nak dafa tit maa ngi ci yoonu nag. diw sa tànk ne bu mu ne mat tànk yi kay bàyyi man kay damay jog dem reposer ni ma njaab dox ko. la alhamdulilah. mo yo dama ragal ngay nek nit sax bay ragal ngay nek lol fàtte won na ne yow won na ne jinne fitu gay ne la nomancé. ah gisoo ma xanaa. wax nga deug de. demal noonu demal rek. li ñu naan la femme de jinne c'est un jinne. waaye yow téye seen jinne dem te bàyyi wax ji. Ah. te nga jéem a ji sa tànk nga toccami ko. Ah. nga mel ni ku jóge ci fóoru tàpp làpp ba noonu ñu ne boo ko yeggee Mariama dina découragé. Ah. ak i mbokkam. leer na toccami ko avant ngay dem. bu dee mbir mi des fois. pétrole day ci waa ji. ah man damaa xaw ma <laughs> damaa taataan <laughs> boobu. yaay saay saay. <laughs> kooru waaju baax bi jar na seetaan min yi dangaa seel dañu demee noonu damay seel ci koor lañ nekk bàyyi ma rek naa ma ñu waxtaan waxtaan jàmm démb wëz bul àggale ma rek wax na moom bu ko fi wax déglu ma rek ma wax la maa la ko ñaan démb daf may vocal day wax ba sama yaram di daw jooy sax def naa ko wës da laa bëgg de te yow xam nga ni wës moo jiit sa biir xool xoolaatal bu baax li ngay def bëgg na la yaayam sa xarit la famille bëgg nañ la dëgg la c'est vrai taarama jaw moom dafa baax loolu moom kenn waxatu ko mais waxi wës moom instant bi bu ma ko wax c'est trop tard <laughs> instant bi si nga xool bi bu ko bi xam nga ko ci fekk mu fànku lay mm. papa ah, naa xam. Eh. ki gën a coowal ci bunt bi. Weh, kena pergi. Weh, weh. olha Ojas. olha dah olha baik. olha jangan olha Jangan. olha Ojas. olha dia olha pakai olha Ojas. olha kena olha Eh. olha leh olha Kamu olha pergi. olha Ojas. olha Maju olha mai olha Papa. olha kaje. olha pergi. olha Papa, olha sim. Olha essa olha vir, olha quando é que olha dessa? olha É. olha a olha não olha nada.

pa xaabal ko yow tamit nag pa dafa jumbek. Kifili ligay? fi la liggéey taloo ma sax nuyu yow it pardon moi pardon mo. pardon moi comment vous allez na ngeen def ça va ça va bien sant alhamdulillah. Pati sa mga kupin, Mariana oh. Mariana kimo yung papa Ouais. Comment tu vas Je vais bien. Et ton famille, ça va bien Ça va, tout le monde. Maria, papa a mis une Ton maman, ta père, tout est bien Oui, ça va très bien. Ah, ça va très bien. Mais attention, tu un copain, vraiment, il est beau, il est souriant. Ah, <laughs> ça, c'est rare pour les Sénégalais, ça. Ça, c'est rare, le genre de café. Oh, j'ai passé par la route, mais il y a trop d'embouteillages. Parce que Tcharoy, Djamagan, Sikamba, tout. Personne n'a bougé. Il y a trop de clando dans, dans le pays. Clando, pas comme du taxi. J'ai envie de clando aujourd'hui. <laughs> Ce vendredi, je prends clando, lundi, mercredi, carapite. <laughs> Euh. Ariana, oh, un beau nom. Hein? Et puis, il est beau, <laughs> il est syrien. Parle, nous sommes un petit peu mal tenga. Au cuisine Ouais. Ok, il n'y a pas de problème. Mariana, fais comme la maison de ton père. Ouais. Oui. Oh ne complexez pas. Oh, comment ça? Oh, allez, mon wogolam sous

nga bàyyi ba indi fi ku tane papa wala ku ko dàq. wax nga ne da nga jógee di dugg waañ. waaw toppatoo. waaw xamul lii lan la. changé nga nag de. mais noonu la. instant bi dama laa yërëm célibataire bu yàggee di yóbbu sa xel mi te yow daa mel moo la daal. Ah, baax na man ma am célibataire xaar gis ndaw nekk ak moom ka may nekk ak. xol bi bëgg di tàggoo waaw yow yow la rek baby

yow dama ñibbi. waaw dama sa cravate bi mel ni xobu poftan. xobu poftan. jógal. ko jóg jógal fii. allez. madame moom la. kon nga madame moom eh jógal fii da nga dem siiraat sa dàll jógal. moo génne ñus la. kan yow. ah. Lena, Lena. ah kaay. waaw gardien bi la. gardien bi mooy fancé wu. papa. oui. ban nga bëgg ma defal la ma defal la lait vanille wala café au lait. les vanilles c'est bon, mm. café au lait sucré c'est bon, mais moi mon ami c'est café au lait sucré. sucré. <laughs> C'est bon pour les vieux eh, et les petits enfants. sama xarit ak ñii. ah oui Mad mooy sa ah oui On nekkee sa xarit li Les ci neex tout est complet. oui c'est ça. am café am na meew sucre. na suukar sucre moo suukar boppam sax. Ah, eh vitale. yan affaire là. mara maju, ini ni nga dis na di wa trop kay wa dama ko bëgg ci wañ bi ñoo ñoo ndaw ñani ñani bi wa ñani bi ana mo nek ni wa wa wa wa d'accord légui dama dama rang bi na ah wa nek 1500 personnes oh 1500 ah sénégal def fay wër ñani wa ñaw nga ñoo ndaw Tema ñu ci Moi, je me présente, je 19 adjoint au maire, le maire de tous les Sénégalais. Ah oui, si tu as un problème de carte d'identité ou passeport, c'est moi qui signe. Si je ne signe pas, le maire ne marche pas parce que ça, c'est le don. Mon père, il était ambassadeur Guinée-Bissau, ma mère, ambassadeur Burkina Faso. Ça se voit. <laughs> Ça se voit. Mm -hmm. Oui. J'ai nationalité de tous les pays du monde. Ah bon? Oui, j'ai fait tous les pays. J'ai fait Ukraine, Russie. Même il y a des pays qui sont derrière les Russies, comme Dakar. Il y a des Dakariens qui sont derrière. là-bas, c'est derrière d'autres monde. Il y a les Nadiens les Bengaliens, les citoyens. c'est derrière Chine. Il y a là-bas un petit village qu'on appelle citoyens. Ils sont très forts. Les, gars là. Même le gars là, il fait partie de la famille nadu. Mais tu, vois là. Mais elle est gourmande, hein? innovation vite fait mii rey yooyu tey fexe ngeen di nelaw bu baax meew mu neex mii nga xam ni moo yàgg nga Sénégal yépp ñu koy wax meew vitale àndandoog diwlin ñaan yi mi nga xam ni mooy diwlin bu baax bii nga xam ni moom la sonaakos indi moo leen doon may kooru waaju baax